noo def rek ay di jàmm ay ñu lay jënte ma gis sa jëkkër mbër yëpp ñëw gis naa fi Modou Lo gis naa fi Papa Sow Gora Sock Franc ak yeneen mbër yi nga xamante ne ñu ngi ci mbë làmb ji ban yëg mbég mbégte nga am ak ban yëg-yëg nga am. sant yàlla si sant yàlla bu baax la xew la ñu ngi wisu la du baax. suñu borom moo la koy defal te dama am borom kër boo xam ne dafa gën ci dafa gën ci borom kër yi dafa nekk benn jëmm nee naa ko yow waroo nekk mbër ndax yoroo jukkooy mbër yoroo xoolu mbër mu nekk ku baax barki alxuraan maa ngi koy ñaanal nag yàlla suñu borom defal ko cat eggali yoonam ci barki Serigne Salim ma yaakaar. comme ni ko nit ñi di waxee am jëkkëru star koo xamante ne bu génnee. ñu bari dañ koy bàyyi xel muy bëre ji ak ni mu mel yow en tant que jigéen nan ngay mel ak moom. man ki ma nekkal yàgg na ma ak moom xam naa ko nit boo nekkee moom xam ko bu génnee am 100 ans ci àll bi doo ko xalaat maa fi gën borom kër barki Serigne Saliou waaw. amee combat waaw ñu def man maay présidente fan si club bi man mi la. waaw man maay présidente fan si club bi. non non non parce que xam naa ki mandal day dem indi ndam ñëw daan. barke Serigne Saliou. mooy sa jëkkër Maama naa ñëw. mënoon naa ñëw ñu lekk laax lekk ceeb après ñu daan ko mu jeex. waaw. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi fii ci ngénte ki nga xamante ni mooy Garga 2 Garga 2 tey di ngénte doomam ñu gis ci champion parcelle yëpp ñëw vraiment gis nañ le roi des arènes Modou Lo Papa Sow Franc Gora Sock Angleterre ak mbooloo yenn mbër yëpp nga xamante ni ku lim doo juum mais da nga dul matal tey ban mbégte nga am ak ban yëg-yëg nga am Garga 2 waaw auzu billaahi mina shaytaani rajiim ginnaaw julli ci Yonent bi ñu ngi nuyu koo xam te ne teewoon na fii tey leen nuyu yéen waa Wasaare TV wax ni wax dëgg yàlla kontaan nañ trop ci teewaay bi fii parce que dañ tudd rek waaye mujj na affaire yi wax dëgg yàlla ëppil loxo parce que man ñu fi dëgg yàlla kontaan naa ci ñëpp gis naa ñëpp di sant samay mbokk samay xarit samay am di jàmm parce que ñëpp di sant mbokk jabar yi tamit taxawaay bi rafet na macha allah di xam ne ñoo bàyyi seen itam ñëw di mel ni Modou Lo Papa Sow Tafa Mbër ah, Angleterre waa Dóor Dóoraat bi gis naa ñëpp ñoom Cheikh ñëpp gis naa leen samay mbokk tamit gis naa ñëpp wax dëgg yàlla sant naa ñëpp di mbégte parce que suñu borom moom bu la mayee ak leer da koy ko li nga xam ne moom nga war a def waaw. li gis Modou am na sax ngànt parce que ci blessure la jógee mais teewul mu ngi dagg lépp ñëw seen diggante yéen ñaar lan la ak Papa Sow. ay magal rakk lan parce man samay mag lan ma jox leen secteur bi nga ne moom la ñu moom xam nga yi Modou Papa ah, ba ñoom ñëpp wax dëgg yàlla gis naa leen wax dëgg nit ñi tamit jàpp nañ ci bu baax macha allah affaire yi rafet na quoi. Hmm. daal mun naa ne am na mbégte daal. am naa mbégte sant yàlla bu baax parce que dañoo nekk ci loo xam te ni bu amee gane gane àdduna war a teral muy dañoo leer muy jigéen. dëppee ko sama waajur bu jigéen tur bi kon loolu mbégte la ñu teeral ko rek def li nga xam ne moom lañ mën suñ borom ñaanal ko daal yàlla guddal fanam wéral cëram di sant sama goro bu Baye Ndiaye ak Kole bay Armand nekk dafa joué ji waaye wax tey wax dëgg yàlla kontaan trop gis naa taxawaay bi jaax play yëpp gis naa la ñëpp gaaw jàpp nañ ci wax dëgg yàlla mënu ma sax lim waaw ñëpp kontaan daal bu baax a baax bu amee doom tuddee ko sa yaay lan nga mën a wax ci loolu. waaw mbégte xam nga sama yaay yàlla dafa dogal ni fan yu taxu koo gudd lool li ma nekk ak moom taxu koo bëri waaye man li ma nekk ak moom sama frère sama mag yi nekkuñu ko moom parce que maa ëpp lu ma nekk ak moom. parce ñoo nekkandoo woon Côte d'Ivoire fa laa juddoo nekkaat ak moom fii ba keroog ba suñu borom di ko jël maanaam maa moom suñu dàqali ko comprendre nga sama waajur góor teel a làq moom it mu nekk jàmbaar. sama nijaay moom mu taxaw ma daal sama yaay taxaw ma wax dëgg yàlla mu saana sumb fóot damay ñëw taxaw ci wet bi foot di sumb ci fóot bi di fóot bi mu làqoon nag mu manqué ma moo tax bi ma amee leer ma tuddee ko ko di sant nag sama bàjjen maam say sekk bu baax gis naa taxawaayam di sant sama magu yaay seen taxawaay rafet na ci mel ni ci mbaan sekk taan caama ñeng càmbay ah, jaw xam nga Fatou Sala ñoom ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay wax yàlla kontaan naa trop ñëpp daal parce que su ma limee rek damay jum waaye sant naa ñëpp gërëm ñëpp di sant nag waa Wassare TV parce que ñoom gis naa ni ñu def làmb yokk na làmb bu baax maa ngi leen di suivre euh, jili maa ngi lay ñaanal yàlla defal la fan gu gudd ak wér parce que ban xamante yàgg na waaye mosoo changé yàlla na la suñu borom lafal cat nga yeggaleeg sa sago ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak mboolem jur képp ku fi teew jàpp sant na gërëm na la di sant nag sama papa Modou Matar Dia wax dëgg yàlla taxawaayam ci man gis naa ko maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam wéral cëram ku ci mel ni sama mam père ba aussi taxawaayam gis naa ko rafet na mel ni doomu Mansour ba gis naa taxawaay waaye wax dëgg yàlla sama xol sedd na daal sant naa ñëpp gërëm ñëpp di sant encore une fois sama bàjjen maam say set di sant sama goro mu ah, nga wax de Kole Mbaye ngi koy sant bu baax ak ay mag ay rakkam ak ay magam sant naa ñëpp gërëm ñëpp wax dëgg yàlla jërëjëf maa ngi ko doon séntu ci xew bi tey yàlla sama xel a ci wax ko ko xam naa ni su ma ko waxoon mu ñëw parce que moom it borom baax la di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ba yàlla yóbbu ñu ci bis ba rek yàlla ma ndam bu sedd gu yóbbu amul benn werante incha allah jërëjëf merci beaucoup di sant tamit Kajoor production gis naa taxawaayam jàpp na ci bu baax ñëwul waaye loxoom gis naa ko maa ngi koy ñaan koy ñaanal maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm parce que mënoon na ma tëgg rek yam ci tëgg ma waaye gis naa ni ma taxawoo sant sama mbasi sama ménager ménagère Bachir Babou ñëw noonu bàyyi teem yëpp ñëw nitu lamb yëpp daal ñëw noonu wax dëgg yàlla kontaan naa sant naa ñëpp gërëm ñëpp merci beaucoup jërëjëf merci